Camara Ali ñi ngi fi looy ni xaar ay compte rendu kenn ku nekk si ñoom dina ñëw fii jox ma compte rendu bu leer nañ ku ma si njëkk woo caporal ñànk mbay Mon général semuanya ketang baik sampai yaram satu aman baik suis disponible de tous les sauces comme mata dama da su kanjak sulu ko mbalak sauce neta su sauce bagat sauce corne bob sauce attaqué sauce sauce nimza sauce donc supu waxal supu supu sauce supu sauce xorom polé ak d'autres sauces waaw mon général waaw

nijaay ba léegi man musuma gis mission bu mel ni mon général hmm. pap 48 ans la am durant ces 48 ans yëpp pap bis bu yàlla sàkk mu ngi bind si cekka heure bu yeewoo mu ngi bind si cekka buy nelaw mu ngi bind si cekka buy tëdd mu ngi bind si cekka bu demee bay tëdd daal di bind si cekka bu demee bay bay lekk ah. daal di bind si cekka demee bay dugg foofu daal di bind si ceeb ka. buy dugg si douche bi. waaw waaw waxal douche. wa buy dugg parce que boo waxee buy dugg foofu mën naa kaa jàppee marché wala oto wala leneen ak leneen douche la waxal douche. xam nga douche dafa rëy. mais da ngay soxla douche yow. si si man mais douche la tudd. waaw douche buy dugg douche. Ah. day bind si ceeb ka. léegi les 48 ans mu ngi bind si ceeb ka. mu ni dafa doy. tey faaw ma dem kër ñoom ceeb li ma bind faaw ma yàddul ko ko. muy général. Pape. Pape mooy ku góor ki. Pape mooy ku góor ki. waaw waaw léegi yow jëlal ma ceeka yaay ku jigéen ki. kan moo ceeka. waaw. damaa ceeka. la moo tax mënoo imaginer ceekaa ngi. c'est que c'est que mon général. xam nga sànq man. mais da nga maa gis ak ay ween ba may wax mooy man maay ceek. léegi léegi ceeka amul ween. ween yow jàppal ne yow yaay cekka man maay pap léegi taxawal mon général mhm. pap fii la jógee mhm. fukk na ko ñoom cekka rek daw si na oh mhm. bonjour tout le matin xanaa pap daa meroon merul de ok continue waaw quand je suis levé de mon sommeil je me promenais dans la rue j'ai rencontré une demoiselle elle était très jolie

bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma yow ceeb kaa nga dund. Iya. ok bu yow waxal te bul ma tuuse waat de. waaw waxal rek. waaw Pape lii la defoon ceeb moo def. waaw waxal waxal. c'est. buñ ne ko tu me rends comme ça xaaral bi ba dama koy oyofal. waaw d'accord. tu me rends comme ça. c'est. léegi après ceeb day xool Pape. li xool ah, ah. ma man ma xool la. waaw léegi Pape ba tey day ñëwaat. mën naa cekk ba tey. yow yaay cekk léegi bu ma la waxee je t'aime yow da ngay wax je t'aime pas. je t'aime pas waaw. je t'aime. je t'aime pas. je t'aime. deret bi wala ngaan oh. deret bi wala eh. ci ko bi mu yuuxoo rek fami wala wala yëpp ñëw akabra ñanga tan bay ban groupe sangel la bokk deret jooju xaar xaar xaar xaar xaar xaar xaar maa continue groupe sàngem bi est ce que du kii. bi kon ne si cekka. mais groupe sàngem bi dara la ci de. déedéet bul ko wax. bu ma ko wax léegi man fan laa tolloon. xaw ma. dara diri wala ngaa la sang. waaw kay. deret bi wala ngaan deret bi wala wala wala wala daw pour bëggoon éliminer rek di waaf si kaw pap tek mun tu deret bi mo kotu pap waaw okay deret ba ngi wala ngaan mais kotu na pap si ni yaay bay li la doon wër bi mu juddoo ba léegi ay mbëggeelu wiiri wiiri ay mbëggeelu yaa ko teree neex ay mbëggeelu jàppal ma jàpp ay mbëggeelu endo waaye man mbëggeelu saa laa doon xaar mbëggeelu sauvage mbëggeelu sang mbëggeelu sauvage ak sang bokkul moo général maa lay expliqué. d'accord pardon ñu ni mbëggeelu sang laa doon xaar. maanaam deret. léegi bi mu waxee mbëggeelu sang. Euh, fañ toll. ah fañ toll. añ. Ah. demal nga lijjanti demal demal demal après lu des nga wax vocal boo demal demal. histoire jàmm nga koy dund mel ni yow la. doo nettali rek sérieusement ngay dóore lu nekk nga du gis.